waaw ñun de dañoo dem ba ay booru deux heures du matin ñu woo ñu ñu woo leen marché baa ngi làkk quoi mhm. léegi ñu fekk ñun ñu yor oto quoi ñu daal di ñëw ba ci marché bi xool li ñu wax dëgg la marché baa ngi lakk mhm. mais ñun li ñu yoroon presque suñu dépôt yi bari dafa lakk quoi marché bi leen ñëpp lakk leen depuis deux heures la démarré waaw depuis deux du matin ba heure bi muy soogay kii quoi muy fay. Mhm. pour yow moo ko waral. lan moo ko waral xamuñu ko moom da yàlla moom mënuñu ne courant la mënuñu ne leneen la quoi mu xamuñu la moo ko waral da yàlla euh, tey sa alal bi ci lakk ñaata la bari na de bari na trop bari na de parce que ñun li ñuy fay nii rek six tonnes buy la woon ak trois tonnes daxaar dañ ko estaboon fi par rapport ci dépôt yi nga xam ne ay diwlin la defoon mhm. yi ay ceeb yi ay ceeb yi ay suukar daanaka ay euh, li ñu yàqule moom kenn xamul toolu moom mhm. waaw bari na trop daal mais nag mënuñu exactement ñaar mais ay millions moom yàqu nañ ci yàqule nañ ko chaque fois dañuy gis ni euh, marché Zing dafay am ay lakk-lakk tey jii lan ngay wax marché Zing li am lakk dox ko bari noonu quoi daanaka bu pay moom dafa dafa jéggi doy mais ñu ndaw noonu rek la daan am dafa fa ay jaagri cuuraay ñu daan fari lakkale seen dépôt yi ñuy def ay genre fii mu ngi doon waaw fii moom c'est lii moom c'est marché beeg léegi léegi ans quoi ëpp na 20 ans mhm. mais c'est la première fois ma gis lu mel nii quoi mhm. autorité yi ci waaw xam man kay li ma ciy wax mooy euh, xanaa ñun dañoo am ay kilifa rek ñu si suñu kilifa yi rek. ñoo xam ne ñoom ñoo jiite marché bi bu ñëwee ñu jéem a gisante ak ñoom waxtaan ak ñoom ku ne la nga yàqule ñu xayma ko quoi. mais ñun ñu yàqule bari na trop trop ci dépôt yi ay diwlin moo fi nekkoon ay ceeb ay kii ay suukar. bari na daal vraiment wax dëgg yàlla ay millions millions millions lañ yàqule ko mais nag sant suñu borom rek yàlla moom nu mu tudd kenn mënu ne dina am kenn mënu fexe ba di am waaw dañoo bokk ci ñuy lakkale suñu bagage waaye nag dañ ci sant yàlla bu baax baax ndaxte tey moom naa doy waar lool ndaxte eh, alal ji ñoo ko liggéey waaye moom ñu kon dañ ci sant yàlla bu baax a baax ko di ñaanal suñu borom defal ñu ci ay tawféex yu bari barke Seex Xaadim man ay 5 heures du matin laa ko dégg waaw lañ ma woo téléphone wax ma ko ne ma marché baa ngi lakk ma dem ñëw su ma yéeme ñëw ma demee ba ñëw sama place bi fekk mu jeex tàkk li moo nekkoon sama place hmm, li moo nekkoon sama place comme li ñëpp doon jaay marché ndugg rek lugg rek waaw comme ay soble pomme de terre ak ay ceeb ak diwlin yooyu lan doon jaay waaw. Mhm. bi nga ñëwee gis sa bagage di lakk lan nga lan nga sant yàlla rek sentir ma dara lu may sant yàlla ndaxte yàlla moo ma ko joxoon yàlla moo ma ko ma ko joxoon kon sant dañuy sant ci sant yàlla baax a baax daal dañ ci sant rek ndax moo ñu ko joxoon bu ñu ko xàññee tamit dañuy xam ne moom moo ñu ko sañ a xàññ rek waaw ndaxte ñun ñi nga xam si ñoo ko liggéey tey moom la ñoo faat te boobaa duñ ci mën dara kon nag sant yàlla lañ ciy def rek baax a baax waaw. tey jii boo euh, xaalis bi nga ñàkk tey ay ñaata wax dëgg yàlla mun ñu ko it mënuñu koo xayma waaw mënuñu ko xayma sant yàlla rek waaw. Euh, yi. autorité yi li leen war rek ñoom kenn ku ne nga xam nga li la war li la war nga def ko rek waaw kenn ku ne nga xam nga li la war rek waaw. man euh, commerçant la marché marché HLM mais fii dama fee am ay xarit ak i mbokk yu nekk ci marché bi. depuis sa matin bi ma ko yëgee ba tey moo tax ma ñëw fii ah di leen xool di ah, di indil leen ah, sama soutien di ah, di leen indil sama soutien ma nga gis situation bi nag ni mu demee muy situation boo xam ni dafa metti lool waaye àdduna moom nii lay demee rek ñun li ñuy liggéey lépp liñ ci am daanaka li ñuy lekk la rek mais yi ci des yëpp daanaka nit ki du ko jariñoo Euh, may ñaanal nag sama mbokk commerçant yi yàlla na leen yàlla jox euh, xolum muñ yàlla jox leen aussi lu ëpp euh, li ñu ñàkkle waaw di di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di lancé aussi un appel au au chef de l'État aux autorités pour ñu veiller ci ci ci ci marché yi essayer aussi de moderniser et aussi les marchés parce que problème yi dafa nekk problème yoo xam ni ça se répète dans trois mois et quatre mois à chaque fois ça se répète euh, il faut que ñu xool marché yi euh, nan lañ koy defaraat euh, nan lañ koy construire après ñu xool aussi l'installation surtout des installations courant bi parce que ñun xam na ni fi mu toll à chaque fois problème mu courant mooy mooy mooy. jàpp ne courant bi moom moo war a def. waaw parce que dégg nga lakk lakk moom man ni ma ko gisee nii moom problème mu courant la parce que marché bi euh, marché bi bu ma li ma ci jàpp mooy euh, am na gardien à chaque fois dañ koy fermer kon nag euh, li koy lakk ci ci biir lay war a jóge te comme ci biir la ci ci biir la war a jóge ah kon man li ma jàpp moom mooy courant bi. courant bi ci marché yu bëri courant bi mooy def effet léegi nag installation yi après ñoom dañ ci war a di veiller di ko xool après ñu jéem a moderniser marché yi pour que problème bi ça se répète les problèmes de l'incendie ça ne se répète plus au Sénégal waaw ma di leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal aussi yéen waa Walfadjri parce que yéen hmm? Euh, Sénégal euh, Sainte Info parce que euh, bi ma ñëwee fii ba tey maa ngi gis seen liggéey te yéen rek laa fi gis ngeen nekk fii di def liggéey bi ni ma waree kon nag maa ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di nuyu di nuyu commerçant yi yëpp nag. waaw bokk naa ci ñi lakkale waaw waaw. ay 3 heures boobu maa ngi nekk Kébémer ndax damaa julli dama julli ji woon waaw après ñu woo ma wax ma ko ma jël oto ñëw quoi waaw mais nag sant yàlla ndax man sama ñetti place ma lakk waaw mais nag du man dong maa lakkale marché bi yëpp laay sew ñu santaat yàlla rek julli ci yonent bi euh, sant suñ ñaari waajur bu baax a baax a baax te xam ne yàlla lu mu ci loxo rek la mu dese moo kopp kan nañ santaat suñu borom bu baax. ab jaam moom day nangu dogal bi yàlla ba yàlla di dogal di la koy jox dafa neexoon sa xol di sedd kenn bu ko dogalee nii da ngay santaat bu baax a yàlla nangu dogal bi waaw ndax boo nangoo dogal bi rek dina woyof ci yow te suñ borom dañ ci am ngërëmul yàlla te mën laa joxaat lépp lii waaw kan nag santaat nañ bu baax a baax a baax a baax. jàpp lakk-lakk bi li ko indi lan nga lan nga jàpp ne moo indi. non ay seet man man xam ma lan moo ko indi parce que man man Kébémer laa nekkoon dañ ma woo téléphone rek ni ma marché baa ngi lakk ci laa jëlee oto ñëw quoi. ay euh, problème courant wala. waaw léegi-léegi am problème courant bu fi am xam nga mu lakk benn côté mais ay ay ay masse lay am rek mais daawul daawul mel ni quoi noo tey moom ni mel moom doy na waa trop waaw doy na waa trop wax dëgg yàlla mais santaat yàlla suñ borom bu baax rek waaw mhm. ah, te xam ni yàlla suñu borom moo ñu ko joxoon mhm. te kam ko bàyyi na fi réew gi rek lim dese moo ko mën nañu waxaat lu ëpp li foofu mhm. waaw ñuy santaat bu baax a baax a baax a baax. waaw léegi boo doon estimer valeur bi nga ñàkkale ay ñaata lay nekk non à peu ko xam mënu ma ko xam parce que xam nga ni ñetti place métti na ko métti na trop te xam nga dañoo jëndal marchandise bàyyi fii xam nga war a ñëw do nekkaat ci waaru dóor waar kam kan nag suñu borom moom moo ko dogalee nii ah métti na lool ndax du man képp ni ma la ko waxee marché bi yëpp la fii boo ko xoolee xam ne lii dooy na waar suñ dogalu suñ borom la nag ah xamaguñu est nag lan moo ko def wala lan moo ko taal mais daal euh, xëy na ñi ko ñi ci war ubbi enquête ñoom dañ ci ubbi enquête dox loolu ko incha allah. autorité yi waaw xanaa ñu woo leen rek parce que affaire bi metti na lool waaw ñu ñëw jàpp ci xam na ah, dimbali seen doom ba xam ni ñun ay liggéeykat lañ yoo xam ni liggéey rek lañ bëgg ah, liggéey jaamu yàlla waaw kan nag bu ñu lii dalee ñun ay ay ñu nekk ay ndaw loolu dana metti loolu waaye nag dañ koy santwaat yàlla suñu borom bu baax a baax a baax a baax waaw waaw sant yàlla bu baax a baax a baax metti na trop mais dañuy santaat suñu borom bu baax ndax yàlla lu mu dogal rek kenn mënu ci dara li ma la wax rek am na ñoo xam ne estet nii ni ma lay wax nii ñu ngi leen ñu ngi tuubaa ñu leen dugal ci bàmmeel kan ñun bu ñu fi yàlla bàyyee yàlla dogal ci ñun lii bàyyi fi suñu róog yi ah dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax. da nga bokk ci ñu lakk. waaw dama see bokk waa dama see ko yëgee. ah dama doon xëy si rek ñu woo ma dama doon xëy si yoon bi lañ ma woowee ñu ne ma seen marché bi mi ngi lakk. ma ne ah ñu ne waaw ma ñëw bu ma ñëwee laa gis comme nii rek comme ni ko ñëpp gisee mu fekk mu lakk nii noonu laa ko gisee. a lakk. sa place muy lakk lan lu ma naqari waaye damaa dellu santal yàlla te xam ne yàlla moo ma joxoon lii ëllëgee mën na ma jox leneen parce que lim denc moo ëpp lii. lim denc moo ëpp lii dara jeexul lépp ci loxo borom lu mu la xañ rek am na lu la dencal. loolu kese la. mais sa valeur xaas bi yaa ko ñaata ah wax dëgg yàlla mënu ma ko xam moom mënu ma ko xam parce que damay jënd di jaay rek man damay jënd teg sama di jaay bu jeexee ma dem utiwaat bëri na daal bëri na xaalis la moom xaalis la trop ñu fi yàqule tamit bari na ay million ñoo fi yàq dëgg yàlla yu borom kant yi mag yi sax laa gën a yërëm sax wax dëgg yàlla ñoom laa gën a yërëm parce que ñoom xamoo xamoo ndax banque lañ jëlee xaalis jën seeni i bagage xamoo yàlla kese moo xam waaw metti na torop torop torop lan ngay wax xanaa ñu jéem ñoo jàppale rek jàppale ñu jàppale ñu defaral ñu suñu marché bi ñu xool yoon bu baax ñu ñu ñu xoolal ñu daal loo xam te ne baax na daal ñu defaral ñu ko parce que sonn nañ marché bi amul benn sécurité waaw yenn saa nga ñëw fekk suñu sàcc sa bagage yenn saa nga ñëw doo gis daal doo gis loo naqari chaque jour waaw war nañ ñu jàppale bu baax defaral ñu ko. tey jii lan nga jàpp ne moo waral ak ah man xaw ma neen daal courant la parce que lu soo xamul xamoo boo ñëwee gis lakk lakk rek nga mën a gis yàlla xam na ne xaw ma lu ko lakk nii laa ko gisee. problème courant ay courant yu sauté wala ay. ah yenn que man sama place mu amul courant événement événement laay jël courant ndax su ma fanaanee bu dul loolu man dama fi yendu ba ngoon ma ñibbi ndax du ma liggéey yi nag ñoom dañuy liggéey guddi xam naa waaye man awma courant boo xam damay liggéey guddi événement daal laa koy jël ndax fi lay fanaan. ok Massa. waaw kay salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi noo tudd. man Babacar Ndaw laa tudd. ñaari place la. waaw effectivement waaw. man mhm. ko yëg. Euh, man maa ngi ko yëg ay 4 heures. pratiquement démarré na ay 3 heures wala 3 heures moins mais 4 heures laa ko yëg. bi may yegg si fekk naa benn place bi moom pratiquement jeex na takk donc li ci génne que néew ci beneen place ba la génn. mais nag sant yàlla. waaw ku may sa bopp moom loo am jël tuuti waaw gënuñ gënee ci benn place bi mooy bii nii waaw lool la yàlla dogal yàlla moom lu mu dogal ci jàmbi rek loolu moo gën ngi sant bu baax. mais bi nga na métti na euh, yàlla moom ay mbiram la quoi lu métti julli rek lay dal nekkul ne lii moo ñu liggéey ñu ñëw koy liggéey bi ñu ñëw indi wuñ fi dara bi ñu judd indi dara yàlla moo dogal lii lu mu dogal ci ñun loolu mooy li gën. loolu mooy li gën wax dëgg yàlla. dañ sant sant yàlla tey ko doon estimer sa valeur xaw ma xaw ma ndax bagage yi dafa cher. bagage yi dafa cher xaw ma xaw ma yàlla rek a xam. yàlla rek a xam lan wax autorité yi. Ah, xanaa ñu xool rek àdduna moom dara nekk fi lu dul jàppalante buñ sañoon lii du dal kenn muy suñ marché muy beneen marché yéene wuñ ko kenn mais yàlla mooy dogal lu ci nekk rek. comme ay ay sénégalais lañ te lu ñu am Sénégal la yem demul feneen nañ jàppalante rek ñu xool nu mu gën a nu mu nu mu gën a oyofee rek ñu jàppalante ko daal voilà. Euh, jàpp ne moom moo lakk li ma jàpp ne moo lakk marché bi mooy li ci gën a garaaw mooy organisation marché bi ah. amul voie yoo xam ne tey sa sapeur pompier mun na fi jaar ba mën a gaaw fay lakk bi. parce que boo xoolee trois heures ba ba pratiquement il est 10 heures ba léegi lakk bi jeexul tàkk donc sa veut dire que war nañu organiser waat ba. oto yi mën a am lu mën a am rek kenn ñaanu ko yàlla mais ñu am saafara bu ñu ko mën a saafara ndax boo xoolee lakk bi pratiquement presque depuis ci buntu marché bi la commencé ba ci digg marché bi 3 heures du matin ba ba ba heures ba 8 heures kenn mënu ko fay xam nga loolu tamit ñàkk organisation ci la bokk bu fekkoon ne oto yi am nañ fu ñu jaar xëy na du demee nii wala dana métti waaye du méttee nii wax dëgg yàlla mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax. am fi ay euh, problème courant. Euh, courant ñun man dama am compteur man sama place yëpp dañu am compteur man dama am compteur waaw waaw. ok jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci.